sans limite TV amat mbégte koy defee rek à tout le temps dañuy gis ni actualité bu amee dañuy daal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu nu mel ñu toog ak ñoom sekk ak ñoom waxtaan wam moo tax nag gis nañu barki Dembo Ndiaye la xew fële ci université mu nekk de dégâts matériels yoo xamante ne bëri na lool yenn ci parent yi di jixi jaaxal ci seen jàngub doom yenn ci étudiants yi itam découragé lool ci seen jàng ñu daal di toog koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci li nga xam ne mu ngi koy ci mouvement bi mu yor itam ca la nga xam ne rek jiite na ko foofu la ca université Anta Diop bu Dakar moo tax ñu daal di dalal Valir Samb madame Diouf nuyu naa la bu baax tata di la ziar bàyyi la nga nuyu suñu internet yi. Euh, maa ngi leen di nuyu Sénégal ak diaspora comme ni ma tàmmee di ko wax. Hmm. di nuyu Sénégal yépp hmm. ñi ñuy seetaan di jaajëfal aussi waa waa Sans hmm. di di la jaajëfal yow Zahra. di jaajëfal ñépp fas yéene waxtaan ak Sénégal ak diaspora bi li xew ci Sénégal fas yéene waxtaan ak Sénégal ak diaspora bi li xew ci Sénégal benn présentation venant de de Tata Valir bu ñu doon laajte tey exactement kan mooy Tata Valir lan nga ñëw voilà Tata Valir benn euh, femme sénégalaise la mm-hmm. euh, bu juddoo Dakar mm-hmm. yaroo Dakar màggee Dakar jàngee Dakar mm-hmm. donc euh, nekk di liggéey ci benn kur benn kër bu ñu naan université. précisément COUD centre des œuvres universitaires de Dakar. donc euh, nekk fa di fa liggéey depuis 87. donc am na yu bëri yoo xam ne mën nañ ci wax. lu ma fekkee ci biir université yi. dans la vie courante aussi dama nekk ci yeneen kuréel. maa ngi nekk ci benn kuréel bu naan bokk si dëkk bi defar dëkk bi. nekk présidente bi foofu Sénégal et diaspora. muy kuréel boo xam ne c'est international aussi nekk ci beneen kuréel mhm. amicale des anciennes basketteuses des Niayes nekk fa secrétaire général donc euh, am na yu bëri yoo xam ne bokk naa ci daal mhm. comme bu ñu génnee ci li nga xam ne mooy université bi kuréel bi nga xam ne bokk ci dëkk bi defar dëkk bi mouvement boobu lan la exactement ci politique ngeen di yëngu waaw mouvement boobu c'est un mouvement de développement la d'ailleurs mhm. ñu ngi ko créé au sortir des de 2012 boo xamante ni URD bu Djibo Ka fa laa bokkoon. dafa demaloon boppam. Mhm. ma nekkoon deuxième sur la liste de Dakar. Mhm. di campagne nag dugg ci biir nit ñi xam li nit ñi soxla. Mhm. ba ma génnee ci élection yooyu Djibo Ka moo moo moo amoon député bi. donc bi ma ci génnee rek laa créé mouvement bi parce que gis naa ne Sénégal. soxla nañ leneen lu dul politique bi daal am na leneen lu bari luñ soxla mooy jàppalante bi dafa des. looloo tax ma créé mouvement bu ci dëkk bi defar dëkk bi. ci lan ci yan ngeen di yëngu. donc si développement euh, di encadrer femmes yi. Mhm. am samay xarit yoo xamante ni dañoo def ay formation yu bëri génn bitim réew dem formé ji. Mhm. formé wu ñëw di ma jàppale ci kuréel boobu. ni former femmes yi. Mhm. bu ñu leen former ba pare. dañ leen di jàppale ci ay financement ñu mën a euh, produire li nga xamante ni loolu lañ doon jàng. da ngay financer famille comme ça ñu daal di liggéey ñi di def commerce ñu dem liggéey ñi def commerce am na yeneen yoo xam ne mi ci kuréel bi mhm. dañu lëkkaloog aussi waa diaspora ñu ñuy yónnee conteneur mhm. matériel médical boo xamante ni dañ koy jox askan wi dalal jàmm jox nañ ko mhm. euh, Isaaxa Diop bu Pikine poste de santé ba yóbbu nañ fa. Kaffrine yóbbu nañ fa ak le maire euh, Ablaye Seydou Sow. suñu xarit boobu ñu ngi koy nuyu de passage. jox nañ aussi Gaspard Camara ndeysaan ak feu Pala Samb. Euh, joxe nañ lu bëri daal joxe nañ aussi étudiant à mobilité réduite ay mm. matériel euh, ay chaise roulante. di leen may ay dons de ticket et tout ça là mhm. donc mouvement bi day def loolu lépp. macha allah mouvement bi ci loolu yëpp rek da ciy yëngu est tamit gouvernement daf ci daal di dugal loxoom wala yéenay seen ay moyens bopp. non ñun ñooy demee suñu moyen bopp euh, wax naa ko ci benn interview. Mhm. xam nga Sénégal boo bëggalee dimbali nit. Mhm. am na nooy def ba dimbali ko. dimbal bi nekkul rek ne ay xaalis la. nit ki mën nga ko dimbali moralement. donc man euh, ni may dimbali nit ki mooy damay ñëw xool ni ma commencé. femmes yi ni ñuy jaay si koñ yi dafa bëri ay table table yu bëri may ñëw taxaw waxtaan ak ñoom mhm. gis kenn ma ne ko yow sa table bi li nga ci dépensé ni ñaata la mu ne ma 10 000 la ma ne ko 10 000 mhm. mhm. donc ma joxaat ko eh, noonu laay def ba affaire bi ëpp ma loxo nag ma dem si banque yi parce que man banque fa la sama salaire di jaar soo leen lebee mu lebal la donc ma jël di leen jox ñoom ay 50 000 25 000 100 000 ça dépend ba affaire bi nag dem ba léegi. Mhm. le 15 bu jot. Mhm. ñun dinañ def suñu pexe ba jox benn jigéen 1 million. le 15 bu jot ñu ngi ci 38 millions. Mhm. te deux personnes ñoo des. donc te demuñu ci banque bi. di fa uti dara ñun suñu biir ñoo def suñu ay pexe. jàppal ma jàpp bi. quinze bu jot boo ñëwee suma siège cité Fadia. en face lycée bi. mouvement bokk si dëkk bi dafa dëkk bi le 15 bu jot dina jox jigéen 1 million. macha allah voilà comme yaa ngi yaa ngi yëngu ci ci développement wu dëkk bi est ce que tamit nguur gi dañu seet si wuñ la wala am yuñ lay yuñ lay bëgg proposé comme que da nga jug ngir defar euh, dëkk bi jàppale itam femmes yi. xam nga mënuñu mënuñu wax ne nguur gi mi ñuy mi ñuy defal parce que ñun. yaakaaruñ ko ci ñoom mhm. dañ na bay ci sa wewu tànk mhm. da ngay commencer d'abord yow gëm sa bopp mhm. di liggéeyal sa bopp parce que mënoo ne toujours da ngay sa loxo nguur gi xëy na xam na sax xëy na peut-être xamuñu li may def mhm. mais ñun li ñu def defuñu ko pour ngistal wala pour pour euh, ñu ñëw di ñu jàppale dañ ko def pour ñi nga xam ne mhm. ñu def lu baax ñu koy def mhm. loolu mooy Sénégal léegi da ngay gis ay si ay temps da nga doon dégg ay Ndiouga Kébé di dégg ay yeneen ñooñu dañ daan dimbale doomu aadama yi jamono ji nag xarala yu bees yi tax na bi Euh, ñëpp nekk nañ ay millionaire ñëpp nekk nañ ay milliardaires ci ñi ma ko mën a wax. mais jàppalante bi moo des. Mhm. ba tax na suñu mouvement dafa jóg ñun. Mhm. pour xeex loolu. Mhm. amuñu ay millions amuñu ay milliards. mais dañuy def ñun suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm di jàppalante suñu biir. macha allah si ay formation dañuy def yaawur bi fraise. yaawur menthe yaawur euh, nature. Euh, bouillon yi nga gis nii ñu bugguma tudd tur dañ koy defar. dafa am kenn si ñun. dafa demoon formé wu bio. bouillon bi ñun dañ koy defar. Euh, céréales locales laaxu bisaab en poudre bi dañ koy defar parce que sóor nañ suñu mbokk yi nekk bitim réew. Mhm. Euh, baxalu saalum bi mhm. dañ koy def ci sachet. Mhm. defar ko ba mu baax ak li ciy war lépp. ñi si ñi nekk bitim réew danañ soxla yooyu des fois. cere mbuum bi ñeexu cere mbuum bi dañ koy def ay sachet ñun. buñ ko defee ay sachet suñu mbokk yi nekk bitim réew tamit dinañ ko mën di jëfandikoo. donc yooyu ci yooyu la dox ci mouvement bi développement boobu la def. donc xaaruñu état xaaruñu kenn ku ñëw daal ànd ak ñun ci liggéey boobu. macha allah parce que képp ku nekk ci biir tamit. Mm-hmm, mm-hmm. je signale ku ci nekk am na sa liggéey. kenn ku nekk si ñun am na ci loo jàpp di ci liggéey. macha allah mouvement bi yal na ko yàlla gën a yëkkati. amiin amiin bu ñu ñëwee ci wàllum sport yaa ngi doon yëngu ci ci basket boo ñu mënee ñëwaat sa parcours ak basket bi. <laughs> non man maa bëgg basket mais basket bëgguma ndax euh, sama yaay. Mm-hmm. romb nga ko noonu ci biti. daf daan seetaani ñoom Kanku Koulibaly. daf naan jóge géejawaay di seetaani match yi stade euh, Marius Ndiaye bële mhm, mhm. donc dama daan ànd ak moom buy dem voyage buy ñëw indil ma ballon jëndal ma ballon basket jëndal ma équipement ma dem stade Amadou Barry bu géejawaay boobu mhm. ñun ñoo fa njëkk a basket ñun waa ñaay si laa dem inscrire nag di basket mais xam nga rek jigéen moom am na yoo xam ne mënoo ci continuer donc su fekkente ne nag euh, dafa da choix la nag yaay def sa choix bëgg naa basket trop mais soriwu ma ci nag waaw mais ba léegi dafa nekk sama xol ndax gis nga ko ci kër gi mm-hmm. nii panneau damay jékki-jékki rek ñaq ñaq ñaq tuuti rek mm-hmm. fàttali ko démb donc sport dafa baax euh, parce que la vieillesse c'est dans la tête voilà mm-hmm. ñu ñëw ci xew xew Sénégal li nga xamante ni génn nañ ko fan yi ñuy ñaan yàlla bu mu fi amati. ndax bakkan yu bari rek daal dina ci rot laata ñuy dugg ci coowal université bi naka nga gisee tolluwaayu réew mi ak suñu doom yi nga xam ne ñàkk nañu leen ci fan yi ñu génn. Euh, foofu laa waroon commencé damay massawu sénégalais yi yëpp. di massawu aussi wayjur yi nga xam ne dañu ñàkk seen ay doom. di di leen jaale di ko jaale Sénégal yëpp. di wax ne lii c'est déplorable. ndax Sénégal euh, dëkku teraanga lañ ko xamee. Sénégal pays de dialogue lañ ko xamee. Euh, loolu dañ koy wax depuis Mathusalem ça fait très longtemps ñuy wax lu mel noonu. donc li xew nii nii. ku mu méttiwul rek doo doomu aadama. parce que xale yi ñooy avenir u Sénégal ëllëg te li xew non man dama ne du du du sénégalais kese la xëy na nag am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ci biir réew mi am na ñoo xamante ni nekkuñu ci réew mi mais am na ay propos yu ñuy jël di ko jàllale ci réseaux sociaux yi loolu day yee fitna ci biir réew mi ay xale boo leen boo leen di bëgg a wax euh, di leen wax ak des propos haineux loolu dañ koy bëgg tàmm te Sénégal gi jàmm rek moo fi xaj donc euh, di ñaan rek plus jamais ça di euh, di wax ne Sénégal jeunesse bi ñu am c'est une jeunesse très saine mais dañu manqué ay orientation jeunesse bi ñu am nii parce que boo xoolee population sénégalaise jeunes yi ñoo ci ëpp léegi te jeunes yi ñu am ay jeunes yu bëgg defar lañ ay jeunes yu bëgg seen réew lañ mais dafa am façon manifester. Mhm. Ablaye Wade war nañu woon benn façon booy manifester. Mhm. xam ne da ngay ñëw takk sa brassard bu rouge. Mhm. mais loolu aussi il faut ñu def ci jàngat. mais est-ce que est-ce que Ablaye Wade opportunité boobu mu mayoon jeunesse am tey suñu président monsieur Macky Sall may na opportunité boobu ay ay jeunes am parce que dañuy gis ne xale yi tout le temps dañuy am lu leen métti. dox ñaxtu bi dafa bëri lool jamono ji loolu seetlu nañu ko. waaw loolu lu lu ñëpp la ah. président bu fi jaar rek da ngay am looy def bàyyi dem keneen ñëw. xëy na c'est à c'est sa façon a à lui président. Macky Sall. xëy na aussi mi ngi leen di prêter une une oreille. mais xam nga euh, réew. dafa am ay loi yu ko tënk. mënuñu bàyyi ku nekk rek di def lu la neex ci réew mi. parce que ñoom ñii xale yi xale yi laa wax. am na benn président bu waxoon jaaroon ci benn dëkk. daal la jeunesse malsaine loolu ba mu ko waxee réccu na ko ndax loolu indi woon na ay problème ci biir réew mi mais xale yi ma gis nii dafa am lu leen manqué li leen manqué nag waxuma ne dañu war a génn ci tali bi xeex waxuma lool de mais dafa kilifa yi réew mi dañ leen war a jox nopp bu baax bi mhm. di leen déglu mhm. te loolu wax naa ko fii keroog mhm. ak kenn ku ma doon waxtaanal leen jeunes yi génn ci gox yi lañ jógee ci kër yi lañ jógee les maires là maires yi nekk ci Sénégal yépp mais kenn ku nekk sa zone am na nooy liggéeyee ak jeunesse bi vraiment lii dootul dootul taxawaayu taxawaayu suñu taxawaayu suñu suñu dafa des parce que c'est à la base soo nekkee maire si benn gox mais y a les de de femmes les les et autres daayira yeeg yooyu mais ñooñu c'est bien beau nga leen di jox ay subventions mais day baax ngay wàcc si si si si si si population bi di waxtaan ak ñoom ubbil leen sa bopp su amee ay yenn opportunité nga defal leen ko jël gaal yi ñun def nañ ci benn marche de de protestation ñun bokk si dëkk bi parce que boo gisee ñu dem di jëli gaal yi dafa am loo xamante ni désespoir la foofu donc yooyu yëpp mën na ñàkk te taxawaayu maire yi wax ba tey dafa des dafa des trop trop parce que jeunes yi bu fekkente ne maire yi def nañ li ñu war a def mais état day ñëw appuyer leen ay fonds yi ba fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais les maires d'abord yi nekk ci communes manifestation yi nga gis yëpp ñu dem utali biir Dakar dañoo génn communes yi comme que vote sanction la defoon ci élection maire yi ay maire opposition daal di jël pouvoir bi toog ci différents gox yi ñu mën a wax Dakar est ce que itam ñooñu état mu ngi leen di jàppale pour ñu mën a jàppale seen gox parce que il faut que état jàppale ndax maire kese mënul liggéey goxam. mu ne euh, c' est vrai que c' difficile parfois nag. Mhm. bokkuloo ci ci pouvoir. Mhm. nga nekk maire opposition c' très difficile. Mhm. mais loolu fi moo fi war a jeex. parce que maire oppo maire opposition. du opp population bi yëpp ña mu ña ko gagné ñëpp mooy seen maire. donc état daf leen war a jàppale. daf leen war a jàppale certes mais organisation bi may wax nii. au niveau des maires yi dafa des. il faut que ñu xëcc nit ñëpp. les maire la maire commune par exemple commune bi ma dëkk. maire boobu nekkul maire APR wala maire euh, beneen kii maire population bala la. donc daf leen war a tàllal loxo. dina am sax koo xamante ni xëy na ci. gox boobu la dëkk mhm. nekkul Sénégal mi ngi bitim réew mais mën na indi apportam ci biir commune bi mhm. def ay jumelage mhm. ah dëkk ak dëkk xam nga yooyu day tax fluidité day am day tax nit ñi gën a nekk benn euh, violence du am dara du am même sécurité gox bi dañ koy assurer te ñooñu les les jeunes de cette commune ou bien de cette localité ñoom bu ñu leen accompagner ñu mën a def loolu ñi bëgg a ñu orienter ñu génn sur des bases très claires mais Sénégal des na daal des na. ba tey ba tey ci ci ci bi la ñuy waxtaanee parce que gis nañ moo yi ak jàmmaarloo bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ak takk der yi ba am ñoo xam ne ci ay kàddu ñu ngi naan des balles réelles lañ leen doon dóor ñi naan policier yaa leen gaañ ñi naan ay nervi ñenn ci gouvernement bi génn ne ay forces occultes ñoom ñoo dugg ci réew mi te loolu depuis 2021 ba léegi ñu ngi ciy wax ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan plus de 20 personnes ñooñu. enquête dañu ko war a tijj ci ñoom ndax xamoo ñu ñu leen faat ci manifestation bi la ñu la ñu la ñu wàññeekoo seen ay waajur ñu ngi demandé loolu. xam nga li nga wax nii. Mhm. man d'abord suñu homme de homme de loi yi dama leen di jaajëfal. Mhm. xam nga bu problème amoon ci réew mi ñaanuma ko yàlla dëkk ak dëkk. Mhm. ñan ñoo ñuy couvrir. les hommes de de loi. benn homme de loi. ñaanul yàlla di jàkkaarloog doomu aadama di ko tiire bal réel. man ci sama gis-gis. kon bu ne dafa am ay force occulte mhm. gisuma ko man mhm. mais dégg naa ñu koy wax mhm. xam nga nit booy wax dangay wax lu leer effectivement mais man dama yaakaar ne suñu homme de loi yi waruñu mën a jàkkaarloog ñun ñi nga xam ne ñun lañu war a garder di ñu tiire ay bal euh, di wax rek aussi comme enquête bi mi ngi en cours ah on demande que la lumière soit faite loolu rek la ñuy ñaan di wax plus jamais ça voilà saccage yi nga xam ne def nañ ko ay Auchan ay station totale nit ñi daal di toog ak feetu tabaski bi ñu jëm si nit ñi liggéeyuñu banque yi kenn mënu retirer sa xaalis parce que am na ñu bari commencé gu ñoo liggéey loolu est-ce du indi benn benn benn fayit ci réew mi walla benn recul dem dellu ci ginnaaw. waaw loolu moom lu may ñaawlu la parce que ci Auchan yeeg station yeeg yooyu sénégalais ñoo fay liggéey. Mhm. te vraiment euh, tax nañ ba ay doomi Sénégal yoo xamante ni dina ñàkk seen liggéey. Mhm. te loolu aussi baaxul di wax aussi dajji Auchan jël saaku ceeb dugal ko sa kër di ko lekk mais loolu man de ñaanuma ko yàlla te yaakaar naa ne parents yi nga xamante ni c'est de c'est des responsable waruñu nangu saaku ceeb wala bekk suukar di dugg seen kër te xamuñ fu mu jógee donc loolu rafetul li ñuy yàq nii ay sénégalais ñoo fa nekk. ñu mën nañ manifester wu neneen te bàyyi yàq bi. mais nag à chaque fois da ngay gis ne ñoom li ñuy yàq mooy àll bi nga xam ne yaakaar nañu ne étranger yi ñoo ko moom ñu ci mel ni français yi parce que dañu naan lépp lu. Toubaawel kenn du ko kenn du ko laal EDK kenn du ko laal mais station Total yi ak EDI ak euh, Auchan yi la ñuy laal. waaw li xam ne moomuñu ko ñun. xam nga conséquence yi lañuy ñuy la wax ni. Mhm. dañu xool causes yi nous nous colonisés par les par mhm. kon euh, tubaab yi liñ fi am. gis nga autoroute à péage bi. jaar naa fi ñaari yoon ma dërëm. kan moo ñàkk xam nga ñoom waa Eiffage ñooy ñàkk. Sénégal aussi dina ci ñàkk. mais loolu pour mu pour ñu dind ko du lii lañ koy dindee waxtaan la laaj te xale yii ma gis nii dans dix ans ñooñu nga wax ne dañ naan dégage. Mhm. di bëgguma tudd seen kii. Mhm. non balaa ñoo duggaat fii dina xool ndax xale yi ma gis nii. Mhm. xale yi bëgg a téye Sénégal la. mais danoo manqué tuuti orientation. xale yu bëgg a Sénégal la dañuy taxaw foofu ndax gis nañ verdict moom moo daal di daanu le premier juin ñoom ñëpp ñu daal di wàcc ci tali bi daal di xeex mandat euh, d'arrêt jotagul mandat d'amener itam joxaguñ ko ko mais comme daam ne nañu ko deux ans ferme de prison ak amende bu mu war a jox ndaw si moom Ousmane Sonko gisoo taxawaayu Ousmane Sonko wala président Macky Sall ñu dox jëm ci jàmm ba li nga xam ne ndaw yi def nañ ko ñu bañati ko def. man daal dossier boobu très sincèrement damay gêné wu di ci wax. Mhm. du ma préféré di ci wax ndax yaay laa sœur laa donc je préfère ne pas en parler si dossier boobu mais gis naa ne dialogue moom war na mën a am pour jàmm am ci Sénégal mhm. xale yi mën a dellusiwaat ci ci jàmm d'accord xale yi mën a dellu dellusiwaat si jàmm ñu ñëw fi nga xam ne am nga fa ndombal tànk yàgg nga fa lool kon donc yaa ko gën a xam képp ku toog di expliquer rek yaa ko gën a miin foofu la di université Anta Diop bu Dakar ñu bëri ci xale yi ñu ngi sikki sàkk ci seen jàng parents yi am nañu découragé ndax xool sa doom ba mu am bac nga daal di ko yóbbu université mu jàngi mu jëkki saa yi fa muy jàngee ñu ne leen toog leen seen kër ba ñu jox leen date boo leen di revenir boo ñu mënee ñëwal ci situation université actuellement euh, xam nga université dafa am ay banqaas mhm. euh, cellule communication COUD. Mhm. moom moo habilité wax ci yenn mhm. mais man ci li may wax. Mhm. ma qualité de secrétaire général de syndicat. je suis secrétaire man secrétaire général la benn syndicat bu nekk COUD. parmi les douze syndicats. nekk fa section COUD muy SATUC syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires. section COUD. man maa ko jiite. au niveau national maa topp ci secrétaire général national muy Souleymane Gaye mu def liggéey bu am solo tey dugg biir kudd mhm. vraiment xool lu ñu mën mooy xool parce que travailleurs yi euh, boo nee syndicalisme travailleurs ñoo tax mhm. donc c'est normal moom mu wàcc si kudd pour xool ñun ñu accompagner ko ñun ñi nga xam ne affaire bi dafa dal suñu kaw dal na ci seen kaw ñoom waa UCAD mhm. mais gënati na dal suñu kaw da nga wax léegi étudiants yi dañ leen wax ñu toog xam nga problème bu amee kilifa kër boo nekkee sa kër sax mu am problème mais da ngay ñëw def c'est très normal parce que ay doomi jàmbur ñoo jóge ci ay région ñëw biir université te kudd bi ñu nekk dafa am autorité bu fa nekk muy Maguette Sène mu def liggéey bu mucc ayib ci biir kudd ñépp naw kudd mais bu ñu demee ba mouvement d'humeur am problème yi bëri mais danañ sécuriser d'abord étudiants yi c'est vrai que am nañu mer taal nañ suñu ay kaar yi nga xamante ni ñun waa kudd mhm. ñu ngi doon wax ne kaar yi doyul mhm. ñu ñëw taal suñu ay kaar mhm. loolu mouvement d'humeur bi moo ko indi kan moo ko def euh, ñi nga xamante ni ñoo habilité euh, leeral mbir mi dinañ ko def mais ñun waa kudd danoo ñaawlu loolu parce que bus yooyu ñu taal étudiants yi seen bopp dañ ko doon àbb di ko demee ci seen ay soxla yi soxla yi yoo xamante ni pour ñoom la ñun aussi moom la am comme moyen de transport kudd ñëpp xam na kudd depuis des années Euh, lii ma gis ni 87 laa dugg COUD. grève 1988 laa gis ne amoon na mais bii ma gis nii non lii ba ma nekkee université ba léegi maa ngi ko soo gis dem ci ay bureau taal ko. lu lu ne ak ah, xewoon na fi am ah. mhm, demoon naa ITV bi ñu dóoree suñu benn naataango. Mhm. ñaawlu loolu parce que étudiants yi suñu ay doom lañu. Mhm. suñuy doom lañu. mënuñu leen def lenn lu leen metti ñoom aussi dañu war a xam ne seen ay parents ñoo nekk foofu. parce que jàng moo leen fa indi c'est le temple du savoir mm-hmm. waruñu fa gis jaasi waruñu fa gis puso sax ñu ko fa gis mm-hmm. ñoom ñooy yaakaaru Sénégal ëllëg am na sànq ku ma dégg muy wax naan mm-hmm. ki fi nekk nii comme mënuñu ko changer dañu war a bàyyi ba étudiants yi jàng ba pare étudiants yooyu noonu yii nga xamante ni ñoo génn peut-être manifesté wu ci loo xamante ni xëy na neexu leen mais ñoom ñooy avenir u réew mi ëllëg président Macky Sall étudiant la jaar na fa jàll ñoom ñooñu tam ci ñoom ñooñu am na ñoo xam ne ñoo yori ji réew mi ëllëg kon dañ leen a war a protéger d'abord mais ñoom aussi en contrepartie mhm. dañu war a xam ne ñun seen ay parents lañu mhm. donc loolu mooy ñi nga xamante ni ñaar ñu mënta taqalikoo dañuy fas yéene ànd rek mhm. seeni moroom jaar nañ fi jàll ñoom dañuy jaar jàll te Sénégal gi buñ ko yàqee ëllëg dañuy ñëw defaraat ko te defaraat boobu c'est du temps perdu parce que ba ma juddoo nous étions sur la voie, sur la bonne voie. Et nous sommes sax sur la bonne voie. parce que l'espoir est permis ah. l'espoir est permis fii dara dara du fi yàqu. Sénégal ñun ñoo ko bëggal suñu bopp. Mhm. même ñi nekk bitim réew. Mhm. bëgg nañ Sénégal. Mhm. mais bu ñu toogee bitim réew yàgg fa. xamuñu lu xew ci réew mi c'est normal yenn saa yi ñuy am yenn kii yi. mais dañ leen di orienter rek débat bi dafa war a positif mais warta nekk lu dëgër. actuellement ndax ñooñu ak matériel yi nga xam ne yàq nañ ko ci kudd waaw loolu ñu yàq fii ci biir kudd tamit euh, bureau yeeg oto yeeg ay mhm. collègues yoo xam ne maa ne di massaw mhm. vraiment seen ay oto mhm. ñu taal ko yooyu yëpp tamit da koy teg rek ci mouvement d'humeur bi bu ñu sañoon loolu du am te li may wax rek ñun waa kudd liggéey rek moo ñu tax a jóg dañuy faral di wax les étudiants notre raison d'être ces étudiants là sont nos enfants et nos frères donc bu problème amee ci réew mi dañuy ñaan rek politisation bi ñuy def biir université biir kudd non ñu arrêté ko xam naa buñ jógee ci lii moom loolu il bi warul warul ñëw biir kut bay indi séparation entre yéen ak étudiants yi wala ci biir étudiants yi loolu la ku nekk am nga sa appartenance mm-hmm. politique mm-hmm. mais politique bi ñuy def ci biir université yi mm-hmm. xëy na mooy jur yenn yi daal dara jaru ko fi ndax ñoo bokk Sénégal te kenn mënu ko séddoo. Mhm. actuellement ban décision ngeen jël yéen waa COUD par rapport ak seen i yàqu yi nga xam ne defal nañ leen ko foofu. wax naa ko sànq à euh, l'entame de mon propos ne dafa am ay personnes autorisées. Mhm. des voix beaucoup plus autorisées que la mienne. Mhm. yu mën a prononcé wu ci loolu. ñoom ñu ngi def seen liggéey. xam naa ne bu ñu paree ils vont situer les responsabilités. ban ban conseil ngay jox. jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci université ba di jàng te defe naa ne actuellement lu bëri balaa ñuy ñëw ci conseil yi dañoo gis ni keroog ci guddi bi nga xamante ne taal nañ ko foofu dafa am ñoo xamante ne dañu avaroon du mal pour génn ci université bi ñiy dëkk ci région yi waroon dem ñibbi est-ce que nekkul itam yéen loolu waroon ngeen ko mën a bi nga xamee ni yàqu-yàqu yi am na ngeen xam ne ay jigéen ñu ngi fa ñu war a ñibbi ci région yi xamuñu kenn biir Dakar mais loolu mais loolu bi mu amee mhm. mais man gis yi ay euh, mais taal nañ suñu ay car lan lan lan waroon def mais gis naa ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi joxe seen ay numéro pour yóbbu nit ñi wala pour may leen paas man personnellement am na ci ñoo xam ne wéev naa leen ñu dem ñibbi seen seen kër ci jàmm ak salaam. ah du loo doo du loo xam ne da ko naan fàng ci internet bi ne lii de def naa ko diw mi jox naa ko diw jox naa ko. Mhm. doo ko wax. Mhm. mais parce que étudiants yi suñu ay doom lañ ku la am ñoo xam ne dañ lay dañ lay dañ lay xam par personne interposée. Mhm. sollicité la mhm. maman dama bëggoon ñibbi ndax problème bi lii li ma ne la amul problème jox ma sa numéro wave mhm. donc sama téléphone laa teg man def si xaalis di wave nit ñi ñuy dem. mais loolu mooy mooy mooy famille. nous une famille. li am kenn sóoru ko étudiants yi sax sóoruñ ko woon. bëgguñu ko tamit. mais tamit nañuy bàyyi xel ne ñun ñoom bu ñu nekkee notre raison d'être. ñoom aussi nañ xam ne. sans ñun tamit université du dox muy campus pédagogique du mmh. campus social mmh. nous sommes une famille mmh. kon di wax rek ne euh, lépp dina baaxaat incha allah lépp ñi wax ci biir bi mën nga ñu ci wax man lu ma gis loolu laay wax sans limite très sincèrement lu ma gisul du ma ci wax xaw ma dañ ñoo rax xaw ma raxuñu mais li am fii ren musul am ba ma nekkee université ba léegi lu ma gis daal laay wax gisuma ko lu ma gis laay wax. d'accord gisoo ñu leen rax li nga gis ngay wax. conseil boo leen di jox en tant que mère. en tant que yaay euh, man dama bëgg ñuy bàyyi xel toujours les personnes à mobilité réduite. Mhm. parce que campus campus social bii nii. Mhm. am na fi ay étudiants yoo xam ne. Mhm. c'est des c'est des étudiants euh, bon handicapés. Mm -hmm. comme ni mu koy wax. dañ leen di war di bàyyi xel. ndax yu mel nii bu amee. ñoom aussi dañuy jaaxle. loolu daal su ma koy wax sax j'ai le cœur meurtri parce que li xew université nii li xew kudd lay wax mm-hmm. non lu ma yéem la mm-hmm. yéem na ma trop di ñaan xale yi rek ñu dellu si waat mm-hmm. seen seen seen xel Sénégal yépp laa koy wax du étudiants yi rek parce que étudiants yi ay nit lañu ay kilifa lañu yu war a yori réew mi ëllëg donc damay ñaan que yu mel nii bu mu amati waaw ah, plus jamais ça parce que ñoom ñooy suñuy yaakaar man yaay la je parle en tant que yaay dama am yaakaar ci étudiants yi parce que ñoom ñooñu ñooñu si mën a génne. dëgg la ñun ñëpp dañu am yaakaar ci ñoom. parce que ay avocats des docteurs ñëpp rek ci ñoom la ñu war a génnee ëllëg. donc dañu xoolaat taxawaay bu baax a wax bu la population yaakaaree dafa am defe naa ne noo war a taxawee dëgg la mën nga wane li la métti mais tant pour autant nga yàq fi nga xam ne si temple du savoir la fële ñëpp bëgg a dem jamono ji du te doon jàng ci université Cheikh ante Diop ay problème tax ñu dàq ko fa définitivement gis nañu keroog dóor ya ñu ko dóor gis nañ itam état bi mu nekk jamono ji tànkam dafa dem loxo bi itam nag si noonu dafa daal di dem muy dund situation yi xaw a métti lool di Pape Abdoulaye Touré nekkoon ndaw foofu ci université Cheikh Anta Diop ba xam xamoon nga Pape Abdoulaye Touré. non xaw ma Pape Abdoulaye Touré. Mhm. wax dëgg yàlla xaw ma ko. Mhm. mais dégg naa ñu koy wax muy lu métti tamit. Mhm. lu métti trop trop. xam naa ne après dinaa jël numéro am ci yow. Mhm. ma ma jéem ko seeti. Mhm. parce que doom la. voilà. Mhm. boo amoon moom mi tey Pape Lay Touré loo koy ñaax ndax dem ba sa jàng yàqu dem ba ñu lay yóbbu te nga may waajur itam yu yaakaar ci yow. Ah, man ban conseil laa ko mën a jox parce que xaw ma réellement ce qui s'est passé. Euh, li ma koy wax rek mooy mu delloo siwaat euh, confiance. mu gën a amaat confiance. parents yi dañ ko soxla. donc loolu. Euh, na ko na ko jàpp déjà. waaw na amaat confiance ci moom. xam ne dafa war a jógaat pour eggale ndawam. est-ce que Tata Valère mën nañu ko xaar mu mu song politique bi ci 2024 bi. Euh, Tata Valère moom euh, créé na mouvement politique. bokk si dëkk bi egsi na le 29 décembre. parce que suñu mouvement politique mouvement de développement bi. dañu dem ba ci biir comme politiciens dañuy soxla. jàppale woon nañ fi ay nit yu bari. wax dëgg yàlla. ku ci mel ne Pape Djibril Fall àndoon na ñëpp moom jàppale ko. Mhm. te yàlla tax sans condition ah. mu dugaloon ñu si liste yàlla def moom mu nekk député plus fort reste. Mhm. parce que jeunes yu mel noonu aussi euh, dañu yaakaaroon ne rek euh, Sénégal war na am ay ay jeunes yoo xamante ni dinañ indi lu bees. ci seen politique bi. mais dañu jàppale ko bon après jeex na quoi. jàppale woon nañu aussi Aliou Sall. parce que suñu siège Golf Sud la nekk. 2014 bi muy jëli mairie ba. dañu toog nag ba ne danoo sonn ci jàppale bi léegi mouvement de développement bi day continuer mhm. mais képp ku bëgg a def politique ñëw ci bokk si dëkk bi egsi na léegi ci langue mhm. politique bi le 29 décembre 2022 mhm. bi passé lañ ko teg donc egsi nañ ci langue politique gi waaw bu baax sax est-ce que mën nañ xaar sa candidature ci élection yi wait and see wait Hmm. wait and si xam naa dañoo naan dañoo nax a campagne. ay xamante ay mais wait and see. am na koo xamante ne daal sama xel mi ngi ci moom. Mm. am na ku ñuy waxal nag vraiment pour pour jàppale ko comme amuñ xaalis. Mm-hmm. donc euh, mais nu sommes euh, présents dans 14 régions et dans la diaspora Kiné Cissé. Mm-hmm. di ko souhaiter joyeux anniversaire démb moo nekkoon anniversaire mooy chargé de la diaspora. présidente de la diaspora donc mouvement bokk si dëkk bi. Mm-hmm. egsi na mi ngi partout au Sénégal et dans la diaspora. macha allah sans sans sans. san limite dinañ ci dinañ ñëw seen loxo voilà nañ dugal seen loxo jàppale la. <laughs> mën ngeen ci dugal seen loxo. fu ñuy daanalee rek mooy conseil bi nga xamante ne ku ñu ku ñu defal émission jamono ji dinañ la ko wax pour nga jox ko suñu président de la république. suñu suñu moom mi nga xamante ni moom moo fi nekk gum suñu président parce que bu ñuy waxante dëgg actuellement moom la fi yàlla teg. Mhm. donc mooy président képp kuy sénégalais booy amoon conseil boo ko jox opposition bi itam ban conseil nga leen di jox jamono ji ndax dëkk euh, bi jaxasoo na. Mhm. président de la république Macky Sall. Mhm. c'est le président de tous les sénégalais. mu neex ñu mu naqari ñu. c'est vrai que bokkuma ak ñoom parti. mais un président de la république dañ ko war a jox cër bi ko yàlla donc euh, euh, yëf yi mën nañ ko régler neneen par les cartes urne yaa ngi fi. donc ñu ñu mën a xam ne rek dañ ko war a jox cër en tant que institution. te xam ne yeneen dëkk yi ñu ngi ñuy xool Sénégal dafa am lu fi bees lu fi génn gaz beeg pétrole beeg yooyu noonu. ñun yooyu lañ bëgg a xañ daal suñu set yi di ñëw. mais non Sénégal ci jàmm lañ ko war a xam donc président de la République. dafa war a gën a gën dafa war a génn sax. Mhm. dalal. dalal xelu sénégalais yi parce que moom la fi yàlla teg wax ak jeunesse bi wax ak mag ñeeg ndaw ñeeg ñépp ndax yàlla bu la tegee ci bopp réew du pour dara la la fa tegee il ne parle pas beaucoup nag mais gis naa ne war na mën a génn wax ba pare dialoguer ak euh, les acteurs politiques politiques et les acteurs de développement et autres donc loolu daal mooy conseil bi nga xamante ni euh, mën naa ko jox président ci sama ndawaay mhm. ak sama kàddu gu néew mhm. pour mu mën a yaatal mhm. géew bi ci dialogue bi merci beaucoup merci beaucoup ñu lay ñu lay remercier bu fekkee dafa am ñoo bëgg a remercier itam ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak internet sans limite yi waaw li may li may euh, ñi may remercier mooy yéen d'abord parce que vous vous déplacé ñëw pour def man interview bi euh, kàddu yi si dëng nag nañu xam ne du ci man euh, nañu xam ne rek xër la rek mais di di wax joyeux anniversaire mhm. par anticipation sama mhm. doom mhm. Fatou Sarr Anthiou Gueye euh, yal na ko yàlla defal jàmm defal ko cat ak Kiné Cissé donc euh, loolu laa ne woon dinaa ko wax di jaajëfal waa bokk ci dëkk bi defar dëkk bi ñëpp nag tant qu'ils sont ñoom ñëpp tous les membres région yeeg diaspora maa ngi leen di jaajëfal liggéey bi na biir parce que 2024 kat lu bees moo war a am ci Sénégal effectivement laa ne woon dinaa ko wax Sénégal ñu xam ne. te ñun sax bëgg nañ jigéen ñi gën a bokk si dëkk bi egsi na ci langue politique bi. <laughs> donc yegsi nañu ci langue politique gi ñoom waaw bokk si dëkk bi mu nekk ay jigéen yu jàmbaare lool ñu koy sant itam di ko gërëm ndax jàmbaar la fëlem na ci université rawatina ci mouvement yi mu nekk gis nañ jàppale bi muy jàppale femmes yi ñu koy ñaanal suñu borom lafal ko cat rek te gën a yokk liggéey bi mu jëm ca kanam 2024 yeneen surprise am incha allah mu jógee itam ci jigéen ñi parce que ñun ñi la ñu bëgg ñu yoroon ñu suñu réew ma fay jaaree di remercier Toumani mi nga xam ne rek moom moo nekkoon ci caméra bi may souhaité tamit euh, souhaité happy birthday à Anthiou mi nga xamante ne xale bu baax la macha allah baax na yaru na te am na respect yi ñëpp koñ bi mu dëkk rek ñëpp nawloo nañu ko ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñu yàgg koo féetee ay ati ati at merci beaucoup à la prochaine